alive. kon la daloon bay dal na ma ci ruq bu xat ba bay da doo dafa dafa dafa lekk ba regg ca ngooñ ma di doxantu ba jaar ci benn ruq ruq bu xat fa tase faak bukki téere rek talig bukki amul fu mu jaar mu taxaw xam ne day dikk bay wër sëg bukki kay caaf caaf xam nga waaye dafa am sens ndax dafa fekk bay regg dafa fekk bukki regg bukki di xam nga kan mu ne wallaay xam naa la yow la bukki mu ne ko lenn rek moo la fii tax a mucc tey mooy foog nga wax ma ñetti dëgg ñetti dëgg ya benn ba benn la mu ne ko bukki benn dëgg bi mu lay njëkk a wax mooy ne suma ma wóoroon ne su jaaree fii tase feeg yow du ma fi jaar ñaareel ba itam mooy ne su ma fi jógee itam képp ku mu ne bukki laa taseel mu baal ma du ko gëm ñetteel ba si bu bukki tool yi bu bëree sama diggante ngi wax ji bëri danaa rekk rek mu ne ko demal kon li ma bëgg wax mooy ku kilifa gu toll ni Ahmad Khalifatul Haaji Muhammad ku toog ak ku ni borom jafalaa ku toog ni sëtu rasulullahi من كان حبهم أساس الدين خلفنا وبغضهم يبون كفر بغير مين كتوغم نيوم بكم نيوم بأنه تانت تخم كان ما أحمد خليفة يستي خم خم خم كان ما أحمد خليفة يستي ديماشيوم تي ديك nga xam ne loo xam-xam-xam mbir boo toogee moom mu wax la ca loo xamul te doo ko dindi te keneen du ko dindi waaye waaye kuy bu kii buñ ne doom moom xalifa la kenn du koy weddi waaye ndax moom doon nut ko waaye fa koo doon doon nag doon du benn kay bàyyam moo doon wax ne man xassahu bi waadixi lbayaani min bayni kulli lbiidi wassudaani te kenn dindiw ko kenn bankut baaraam bu ba tey te kenn du ko banque ba yowmal xiyaam kooku doomam bu taxawee ci gannaaw mel noonu ci xam-xam nga nama taxaw wax ci xam-xam ah waay waay waay ma ne waaye ku ne loo wax du saf waay loo wax du saf kon mel na ni tiit na am na bëri tiitee woon waaye comme moo ñu jox ndigal te war rasulu ala qadri l mursili kanaa qadru ba eh, dimbale ñu rek ñu mën a woyal liñ bëgg a woyal te mooy kan tagg rasulullah bala may dem Ahmad Khalifa Niass xamul nu ma ko tuddee yaqdi lxawaija bil ishaara صاحب التصرف التجاري في هذه البلدة يلا بدك موتي يلا دفع ماتي damay wax rek lu maa tayag yàlla nag lu tax ak mbindeef jaaduwu ca looloo bari yàlla yuti man shaa liman shaa ci nan ala wajhin shaa kana lii kay maa tay weesu ko te aduna ba aduna jeex ñaar rek fi nekk ay yëf ak ay nit ay mindeef maanaam ñëpp sax mindeef la ndax yëf yi mindeef la nit yi mindeef la waaye pour teqale ay yëf ak nit moo fi yàlla nag jël tànn ñenn ci mindeefam yi yàlla am na ñu mu tàmmale wa rabbuka yaxluqu ma yashaau wa yax jeex na di daaray alquran la ku gàtt ñu gàgganti la kër Ahmed Khalifa Niass la daaray xam-xam kon kuy wax wala xamal bu baax li ngay wax wa rabbuka yaxluqu ma yashaau wa yaxtaaru yàlla bind na ñëpp bind ba pare loolu ba ti ko tànn ñenn ca ñooñu mu bind muy benn yàlla ba mu bindee yëf yii tamit mooy yaamul xel te duñ nit da caa wëlbatiku yi tànn ca da caa wëlbatiku am lum ca tànn kon nga xam ne ni aadaay yàlla mooy bind waaye yàlla bokk na ci aadaam yi tamit lépp mësta di tànn ci lenn ci la bind ñaare boo xoolee yàlla lépp lum bind jël na tànn na ca lenn gënal ko def muy sangi mu bind demal ci ba mu bindee samedi ak dimanche dana yéen ñoom nag àjjumaay sang demal ci weer yi weeru xooree sang yi weer demal ci at yi demal ci yënant yi demal ci demal demal ci téere yi demal ci diine yi demal ci sang yi demal ci ñëpp ba mu jeex yàlla masta dañ di bind mais aadaam mooy tànn tànn ca lam leen na lam bind def ko muy sang la ca des kon yàlla am na ñu mu tànn ci ay nitam yim bind ñooñu la ñuy tuddee am déet yàlla lim lim bi kay moo bind ñëpp waaye moo tànn kon lim tànn kooku nitam la comme tànn kooku nitam la kon yàlla ñu yàlla tànn waaye bu ñu yàlla tànn tamit tamit xam nga Ahmed Khalifa Niass tànne doy ndax ku yàlla comme tànn ka ko tànn koy doy am déet ah waaw kay Khalifa Niass nee na Cheikh Tidiane la yàlla la yonent yàlla Muhammad tànn def ko muy xalifaam ci kaw suuf aha bon euh, euh, bayti ba nan la بيتي بن الله خلفه فالمصطفى بفيود السر خلفه وهو الخليفة في كل البريات المصطفى بفيود السر خلفه فهو الخليفة في كل البريات فالمصطفى بفيود السر خلفه فهو الخليفة في كل البريات المصطفى بفيود السر خلفه فهو الخليفة في كل البريات bariyati yàlla tànn sayyiduna Muhammad teg ci kaw ñëpp ak lépp muy sangu àdduna ak àllaaxira kum neex loolu la kum naqari noonu la kon yonent yàlla Muhammad mi yàlla tànn ku wëlbate ko kum tànn kooku yàlla ko tànn moo tànn Cheikh ne ko wuutuma ci gaañi yàlla yi tamit tànn na ñenn ci ay nitam tudde leen gaa yi yàlla lu muy niti yàlla yi yàlla itam ci ay mbiram yim bind yeen ya ko ca neex yooyu di yëfi yàlla yàlla yemu ca yëfi yàlla yëf yooyu mu tànn muy yëfi yàlla wëlbatiku dénk ko kamu tànn muy nitu yàlla nitu yàlla booy yor yëfi yàlla waaw doo gis mukk ku yor yëfi yàlla te du dul yàlla mën mënul ne sax mënta ne yëfi yàlla moom yàlla rek nitu yàlla rek li ma bëgg a wax sori na sëñ bu sëñ bu parti bu sëñ bi ñëwagutoon nag ki laa koy gën a ñemee xotti waaye bu leen fàtte la daloon béy daf maa dal ba tey te ñetti dëgg yi tëna ma kon mooy ki nga xam ne wax ci moom daanaka gàmm la du ma daan amul daanaka sax gàmm ndax mooy sa tu rasulullahi xaqan maam xali jeex jeex la jeexaat la moom mu ne woon moom moom mi toog mu yàgg mu fudd ci maar ma ne kaay leen xool ñëpp ñëw lan la xalifa lu xew mu ne kaay leen xool sama gannaaw ñu xool ka ko fekkee ma nettali ma nga barsax yàlla ko yàlla dolli leer ñëpp xool mu ne laaj leen liggéey bi sama yaay ndax dama ko judd waayoon dafa maa dab ah liggéey bi ndax maa dab ndax ndax dama ndax ma ma ba dab la ma liggéey bii dalee waaye kooku xam nga juurun ahituhu haylan bihada mada alwisali loolu wax التسليم ونحن أندور ناهتو هيلا بها زمان الوصال كوحلو كان لا باي أحمد خليفة يسكاي فتصل خليفة يسوي man ba ñuy xeex badar légat laa judduwaale boo xam ne mag ma dalee ca badar kooku kon da doon juddu juddul waaye juddu woon na yéen xali jibril ya ñi ñi laaj Jibril ne ko xaw ma Muhammad ne ko yow ñaata at am mu yaat eh, xaw ma xaw yaat de dama lenn daal am na am na benn bidiw boo xam ne danaan fenk fale bu fenkee day suux balaa fenkaat dana am téeméeri junne yaat fenk na benn yoon ma konte ko mu fenkati ma konte ko muy téeméeri junne yoon kii la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fëgg dem na ba ne ko ana zaaka al kawkab may bidiw ba waaye bu ñu toogee ba mu ne tey la judd woon Amina du jur ko day judd judd waaye judd woon na ndax lawlaahu ma kaana kaw kullu kawnin in kaana ayna al kamaali lawlaahu ma gàmmu laay wax ma delluwaat gannaaw gàmmu gi day guddi man ngeen bàyyi sëriñ bi mu doggali ñu ci rasulullahi ku maam xalifa yurndu ba joxoñ na la yow shérifu sëtu rasulullahi deret yonent yàlla Muhammad ngay daw ci yow waaye loolu dara gënatu koo wér moom mi ne waxoon duurun ahibtu moom comme ni ma ko waxee am loolaa ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon يلا تنال نانيو احمد خليفه ناس ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد اسم احمد بعد بكره احمد احمد 53 سورة الجن جن جن ñata 53 moo tax buñ la tuddee ahmad te nga jël dara ci ahmad jëloon tuwoo ko dañ na da ñenn yi dañ la jin baa ah, kii sax kii sax kii du jinni waaw boo dul jinni da nga def jëfi jinni da nga jaaxal ñëpp daal ci gàttal laa dama wax moom xalifa lu mu tegoon ci duur daf ne ansat ka fi kulli daarin wa kulli asaat ka fi rasulullah ma yegg ca la waaye jeex gu ma jeex ci yonent yàlla muhammad la ci moom moo ma fàtteloo ma man sama dund gi dafa mel ni nekkut ndax ci rasulullah yi laa seey te xalifa yoroon lu ne mënoon lu ne mënoon doon ku ne waaye nag mu nëbbu boppam ndax jeex ci rasulullah yi foog ñu bàyyi ñu fi jëmm ju mel ni xalifa wane boppam ahmad xalifa Ñas wane boppam ku mën a jur Ahmad Khalifa Niass ku dul Khalifa Niass waxuma ñoo leen ëpp chance ñun ñu ñëw ñàkk wallahi parce que lu tax xam nga lu tax ku dem Kaolack tey bokk na ci li la tax a jóg ziyaara gi Khalifa Niass ziyaara ak Alhaji Abdoulaye Niass ku dem Madina tey ku la tax a jóg bokk na ca ziyaara Baye Niass waxu mën a baaxul de ku dem Tiwaawan tey bokk na ci sa la tax a jóg ziar Alaaji Maalik ak yu baax yeeg wàllu yu baax yooyu tudd fa ku dem feneen tamit noona waaye ñooñu kon seen dëgg la gàmmu nañ waaye cocktail nañ ko ñun suñu gàmmu gi nag meew pire la rax sëriñ bi ma ko rek waaw fii ku fi ñëw ku ne tagg yéen a jóg ziara dew fi kanaa kenn ki muy Rasulullah kon cocktail luñ ko may la sax te xalifa ñëw dégg ngeen li ma bëgg a waxam ma bëgg a meew nag mu biir man moo dàq bu bu ñu rax ma gi kenn raxu ko yeneen ti la Muhammad ba min alifi ila al yaa'i nga mab lem la lépp kaw ga lem digg ba lem suuf ga lem foo ba nu muy bun buni waaw ku ñu may loolu sens boobu كوني ما يسانس بوبو دي احمد خليفه جرب سانتام جرب تاني انا لو واي من يب نوح جا جبي احمد خليفه قال في عبد الله رواي عن جبوتان الله الله